Euh, docteur Doudou Sène ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay soxna si. waaw ngay coordinateur programme euh, de lutte contre le paludisme laaj bu njëkk bi euh, ndax mën nga ñu defal situation palu bi fii ci Sénégal ci période bi nga xam ne moom la ñu nekk muy hivernage bi. waaw effectivement maa ngi leen di sant di nuyu auditeurs yi ak auditrices yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu di am mbégte di wax ci ñi nga xam ne moo jëm ci sibiru bi ci at mi ñu nekk nii. Sénégal mën nañ koo tënk ci wàllu sibiru bi ni mu tëddee ci Sénégal mën nañu distinguer ñetti gox ñetti façon gox dafa am gox yoo xam ne fa la sibiru bi gën a bare muy Kédougou muy Tambacounda ak Kolda tey jii boo jëlee junni nit ci at mi am nañu ba ñaar fukk ak ñaar fukk ak juróom yoo xam ne chaque année dañuy def palu tey jii boo demee lu mel ni Saraya wala Salemata li nga gis ñoo xam ne boo jëlee junni nit mën nañu wax ne juróom benn fukk juróom benn téeméer yëpp euh, six cent personnes yi mën na def tamit ci at mi donc euh, muy la zone qu'on appelle la zone rouge mooy fi nga xam ne fële bi vraiment fa la gën a bëree tey jii boo demee ci digg euh, réew mi muy Saloum Saloum ci Kaolack ci Kaffrine jël un peu région de Fatick ak Diourbel foofu dafa digg doomu hmm. boo jëlee junni nit tey jii fukk ba fukk ak juróom ñooy faral di am sibiru bi ci at mi léegi nag mu am beneen zone boo xam ne foofu dañoo am yaakaar ne bu ñu defee jéego yu ndaw rek mën nañoo tàggu ak sibiru bi moom la ñuy wax la zone de préélimination muy jëm Fouta Matam Louga Saint-Louis ak une partie de la région de Thiès une partie de la région de Fatick ak Ziguinchor tey ji boo fa demee boo jëlee junni nit pratiquement mun naa ne ñi fay def sibiru bi ñu néew a la ñu juróom donc pour wax la ne rek Sénégal am na ay avancées yu bëree bëri. Hmm. mais boo comparé li nga xam ne mooy at mi ñu passé nii ak at mi ñu nekk nii chiffre bi dafa mel ni yokk googu nag li ko waral mën nañ ko tënk ci ñaari fànn li ci njëkk mooy stratégie yi nga xam ne dañu def lañu euh, ko teg en place tey jii bu njëkk ba clinique yi daaw ñu joxe seen information yi nga xam ne moom la ñuy collecté donc clinique yi cabinet médical yi ak cabinet yu ndaw yi euh, souvent dañuy faral di am ay cas de paludisme yoo xam ne daawuñ ko recensé tey ñu def ay stratégie yoo xam ne ñoom ñëpp dañuy jox seen i loolu mën na expliquer comparé à deux mille vingt li tax mu gën a bëri bi ci des mooy wàll communautaire bi dañoo jël ce qu'on appelle ay DSDOM DSDOM mooy dispensateur de soins à domicile mu nekk ñoo xam ne dañuy dëkk ci gox-goxaan yi ñu former leen pour ku amee sibiru bu yaram tàngee ñu mën a ñëw defal le test de diagnostic rapide pour xam ndax sibiru la a déet loolu tamit mu nekk stratégie boo xam ne def nañ ko pour vraiment gën a jege askan bi ci wàllu xeex si biiru bi euh, loolu mooy facteurs yi nga xam ne moom la ñu identifier ci stratégie mais beneen bi ci nekk mooy xam ngeen ne Covid bi pan yi Covid bi bëri woon na ba tax na population bi dañoo xawoon a ragal dem ci structure de santé yi loolu tamit mën na expliquer lan moo tax euh, sibiru bi gën a bëri parce que boo amee fièvre boo nee tey jii su ma demee muy désinfecté comme Covid du ma dem léegi nag boo toogee kër ga euh, bu fa yow ba nekkee dafay continuer di ko wàll ñi ci fànn boobu jàpp nañ ne peut-être ay facteurs la yoo xam ne mën na ko expliquer ak wàññi woon li nga xam ne mooy liggéey bi nit ñi doon def ci période Covid. globalement daal mën naa ne chiffre bi xaw na yokk ci at mi mais boo ko jëlee tendance bi nga xam ne depuis suñu plan stratégique bi jeex en deux mille vingt chiffre bi wàññeeku na considérablement comparé aux années deux mille deux mille ba deux mille dix donc euh, ça c'est quand même euh, lu ñu mën a retenir ci wàllu xeex chiffre ci Sénégal. Mm-hmm. tàggoo ak sibiru fii ak deux mille trente te wax dëgg fa yàlla état mi ngi def kéemtalaay kàttanam ci fànn boobu ak partenaire nga xam ne ñoo ñuy appuyé pour que Sénégal mën a bokk ci dëkk yi nga xam ne fii ak deux mille trente sibiru daf fiy jeex. Euh, ci yan gox la ñu nemmeeku ni sibiru bi foofu la gën a bëree ak ñi ci génn àddina ci yan gox la gën a bëri. Euh, gox yi mu gën a bëree boo xoolee gu Kédougou Kolda moom li ma doon wax sax boo jëlee junni nit tey jii boo demee lu mel ni Kédougou Tamba lu mel ni Salemata Saraya di nga jël junni ñoo xam ne pratiquement mun naa ne six cent personnes juróom euh, benn téeméeri nit ñoo xam ne tey jii mën nañu am sukkur ci at mi loolu xaw na bëri comparé ak moyenne nationale yi moom nationale bi tey jii boo jëlee junni nit mun naa ne pratiquement ñaar fukk ak benn ñoo ciy faral di am sukkur ci at mi mais boo demee ci zone boobu Kédougou Tamba Kolda boo jëlee li ñu am ci sukkur yëpp ci Sénégal mun naa ne juróom fukk yëpp. ak euh, juróom ñetti fukk yëpp ñaa koy retrouver ci zone boobu même ñi ciy faatu aussi côté boobu la gën a bare muy gu Tamba Kolda par contre li ñuy remarqué mooy que ne Dakar ciy faatu nag dafa commencé bari parce que xam nga euh, dakaar ci biir bi demoon na ba wàññeeku waaye li ko waral mooy que ne waa Dakar ak yenn zones yi faral li ñuy faral di jëfandikoo li nga xam ne mooy jumtuwaay yi muy sànke yi nga xam ne dañ leen koy dañ leen koy jox pour ñu ciy tëdd parce que sànke tey jii foo dem ci réew mi amul benn poste de santé amul benn gox booy dem te doo fa fekk sànq ci poste de santé bi te sànq yooyu nit war ko koo jëndee lu weesu téeméer yi nga xam ne population général mais kii di jigéen bu wérul kii di xale boo xam ne amul juróomi at bu fa demee dañ ko ko jox gratuitement loolu de la woo xam ne bëggoon naa ko def population bi pour wax leen ne moustiquaires yi am na ci réew mi kon euh, te loolu état moo ko def gratuitement pour les populations parce que téeméer lañ koy weccee ko pour mën a dimbali euh, ñi nga xam ne ñooy poste de yi ci transport bi ak communication bi nga xam ne moom la ñuy faral def te loolu ñu ngi ciy jàppale mooy partenaires yi mel ni USAID Fonds mondial ak Banque islamique de développement ñi nga xam ne tey jii campagne bi nga xam ne def nañ ko ci distribution de moustiquaires ci at mii ñu génn nii ñu nekk nii du moins en deux mille vingt deux distribué plus de pratiquement euh, huit millions de moustiquaires ci gox goxaan yi ba mu des Dakar ak Thiès ñi nga xam ne boo soxlaa santé boo ne ci poste de santé bi mën nga ko fa am soo ko méngaleeg at bi ñu génn euh, côté chiffre euh, ñaata nit ñoo am palu bi euh, ren bi fi ci Sénégal. waaw paludisme boo xoolee daaw ni en deux mille ñu ngi woon à peu ci quatre cent et quelques mille cas de paludisme mais at ren nii ñu ngi pratiquement ci ay cinq cent et quelques mille cas. Hmm. mooy li ma la wax ne moom lañ jël comme stratégie pour développer loolu mooy euh, secteur privé bi nga xam ne ñu joxe seen information bokk na ci li tax ñu yaakaar ne loolu tax chiffres yi gën a bëri day nuru lu bëri fekk ne peut-être dañ leen di woon euh, recensé mais beneen bi euh, inondation yi cette année wax nga ko sànq ci tubaab ak li nga xam ne mooy Covid 19 bi bokk na ci facteurs yi nga xam ne mel nañ ni. Hmm. contribuer na ci augmentation du nombre de de famille. parce que 2019 dafa dafa dafa dëppoo ak nawet. Hmm. te nawetu rek yi gis nañ ne inondation. d'accord ñaan ñi nga xam ne ñooy population bi ñuy faral di tëdd ci tànk rek. te seen yaram bu tàngee ñu dem ci poste de santé bi leen gën ñu defal leen test pour ñu xam ndax sibiru la parce que garab yi c'est gratuit. amul kenn ku ci war a fay dara dara dara. Mm-hmm. Euh, docteur Doudou seen gis nañ taw bi ren bëri na lool te bu taw amee inondation day am inondation yi bëri na ndox yi nga xam ne day taa lool nag day tax euh, yooyu dañuy gën di euh, développé wu nguur gi tey est-ce que waru jël ay jéego ngir rek xeex yooyu nga xam ne bëri na. nguur gi ci ay jumtuwaay yooyu ngay wax nii. ci la dëkk pratiquement mun naa wax ne. ci li nga xam ne ak l'appui du service d'hygiène li nga xam ne de temps en am bi am na suñu ay matuwaay yu ñuy faral di jël par rapport ak yooyu parce que tey jii boo xoolee sibiru dafa dëppoo ak nawet rawatina ren ji nga xam ne ak daaw nga xam ne nawet bi dafa yàlla def ni ko barkeel ba indi ay inondation ci yenn gox-goxaan yi loolu nag euh, population seen bopp wax nañ jël matuwaay di tëdd ci sànke li ci des état def na ay jéego yu bëree bëri lépp mën agula sotteegum benn yoon parce que tey boo demee li mel ni Pikine déggoo ay caaro ji de kaw am na ay canalisation yi nga xam ne tey ji état def na ko fa ba xëy na lu baax a baax a baax lii nga xam ne moo nekk ci groupe donc euh, ci fànn boobu quand ak service des jeunes euh, état mi ngi def ay jéego yu bëree bëri ci fànn boobu. Euh, docteur Doudou Sène foo leen toll jamono ji ci campagne distribution moustiquaires yi foo leen ci toll. campagne bi ñu ngi koy door a pare nii. pratiquement mun naa ne lu tolloog juróom-ñetti million ci ay mu séddale nañ ko ci réew mi euh, ci gox goxaan yëpp ba mu des ak Thiès li nga xam ne defuñ ci campagne campagne bi cette année ñu ngi ko def en synchronisation ak suñu euh, yi nga xam ne ñoo waa Gambie parce que Gambie mënut a dem ci xeex si duru sans Sénégal Sénégal mënut a dem sans ñoom ñu am nag ay bataaxal yoo xam ne dañ ko bindoon suñu biir pour lépp lu ñuy def andoo ko ensemble beneen particularité bi mooy que ne dañu am ce qu'on appelle des moustiquaires de nouvelle génération parce que léegi dafa commencé am résistance hmm. ci poudre euh, bi ñu doon def ci sànq yi pour mu rey yooyu ñu wut ay yu bees dugal ko fay nga xam ne mooy Kédougou Tambacounda ak Kolda pour gën a aar askan bi ci yooyu nga xam ne ñooy indi sibiru. d'accord euh, wax nga ko sànq palu bi euh, bëri na lool yokk na bu baax boo ko lekk at yi ñu weesu euh, ñu ci bëri sax ñu ngi ñàkk seet bakkan lan ngay recommander askan wi ngir ñu mucc ci palu bi. bu ci njëkk mooy di aar seen bopp ci sibiru parce que am na ay jumtuwaay yu fi nekk ñu koy wax sànq yi sànq yi ñu nàndal yi tey jii boo ko jëlee amul kenn koo xam ne tey jii war nga ko jëndee moins de plus de cinq cents francs. ñi nga xam ne mooy population générale bi ba mu des jigéen ñi nga xam ne wéruñu ak xale yi nga xam ne dañu am juróomi at boo am euh, juróomi at ñoom dañ leen koy may gratuitement ci poste de santé boo dem amul fenn fooy dem ci Sénégal te doo fa fekk santé poste de santé boo dem rek di nga fa fekk santé donc du ñaan population bi ñu ñuy tëdd ci santé santé yi nag at yi yëpp lañ ko suggéré rawatina ci nawet bi parce que boo ci tëddee daf lay permettre quand même nga aar ci des mooy bu sa yaram da ngay dem ci structure de santé ñu defal li ñuy wax te test diagnostic rapide parce que amul dara loo ci fay pour xam ndax sibiru la wala du sibiru bu nekkee sibiru la a mettre na en place ay médicaments yoo xam ne gratuitement dañ koy jox population bi mais bu nekkee pas du grave tamit euh, facilement mën nañ ay xam ne c'est très efficace li bon mooy nga am yaram bu tàng toog sa boo ko defee rek wala ngay dem ci pharmacie bu nekk à côté yaram dafa tàng pharmacie pour garab la. Mm-hmm. du pour ay consultation di ko ñaan population bi ñu gën a farlu ci loolu. Mm-hmm. yeneen matuwaay yi ñu jël nag mooy campagne de chimio prévention saisonnière du paludisme di ko wax yi nga xam ne zone yi nga xam ne fa la bu gën a baree fa lañ koy faral di defee muy Kédougou Tamba Kolda ak une partie de la région de Diourbel notamment ci Touba ak fii nga xam ne mooy Kaolack yooyu daal mooy matuwaay yi ñu jël. ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi koy def nag euh, ay investigation des cas mooy cas bu nekk ñu xool nan la tëddee ci gox-goxaan yi nga xam ne ci biir bu wàññeeku na fa bu baax a baax a baax notamment ci Matam ci Saint-Louis région de Louga pour cas bu nekk ñu mën a xool ndax dëkkandoo bu amu ko bu ko amee ñu mën ko teel a traité. docteur Doudou ñu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi leen di sant yéen itam bu baax a baax ci occasion bi ñu di fàttali yaa di coordonnateur programme de lutte contre le paludisme.